la la faal la ilaha illallah la ilaha faal illallah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi njabootug lislaam rawatina taalibey cheikhuna ahmadul xadim amaan nañ mbég ci ci toog ci jataay bi nga xam ne jataayub sant yàlla la ak fàttaliku ak waajal bisum nitu yàlla di góor yàlla gu mag gu fi nekkoon daan liggéeyal Seexuna Ahmadul Xadim di buntub yoonu murid di maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Muridin ginnaaw bu nu jotee ndigal ci Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér wàcc ci sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbend Fall mi nga xam ne tey jii mooy jëwriñu maam Cheikh Rahima Fall ñëw nag ci daayira Jësbul Murid bi lëkkale mbooleem sëti maam Cheikh Rahima Fall yu góor yi ak yu jigéen yi moo xam muy sëti deret wala sëti pas-pas ngir waajal bis bu mag boo xam ne dañ ko amal fii delloowaat ci njukkal nag maam Cheikh Rahima Fall Babul Mouridine bis boobu war a nekk le 29 avril incha allahu rabbi fii ci jannatul mawa fi nga xamante ne fii la ñu liggéeyale maam Cheikh Rahima Fall bis boobu nag ren dañ cee delloowaat njukkal Serigne Touba Cheikh Mahmadul taxa ku ne xam ne bàyyi xel gu ma bàyyi xel njabootug maam Cheikh ma Fall ak waxtu wu ne mu leen di jox ndigal li nga xamante ni bii ci la seen ruu di dundee loolu moo tax ñu koy delloowaat njukkal ci bis bi tuddee ko ko waaye nag di ci rendre hommage ki nga xam ne moo fab leng bi teg ko ci loxol Serigne Amdi Modou sëñ Modou Mbenn muy Serigne Cheikh Jëmb Fall jëwriñu maam Cheikh Rahma Fall ja yàlla na yàlla yokk ay leeram ak mboolem ñam fa nekkal moo tax ñuy woote bis bi di ci woo mbooleem buntu kër yi Serigne Touba yépp nag la ko tàmbalee ci kër Cheikh Mahamadou Moustapha mi nga xam ne moo jëkk a wuutu Cheikhuna Ahmadul Khadim jaar ci buntu kër rakkam yi ba ñëw ci Cheikh Mahamadou Mourtada bàyyiwun ci benn buntu kër waaye di ci woo nag buntu kër yi jigéen yi ndax xam Cheikh Rafal nee na woon doomi sëriñ Touba ju góor ji ak ju jigéen ji ñooyam kon la ko tàmbalee ci buntu kër soxna Fatidia ba ci buntu kër soxna Maymuna bàyyiwun ci benn buntu kër waaye ku tudd Serigne Touba tudd rakkam yu baax yam àndaloon la ko tàmbalee ci kër maam Thierno Ibrahim borom daarul muxti ba ñëw ci kër Serigne Massamba bàyyiwun ci benn buntu kër waaye nag di ko yëgal mbooleem seex yi nga xam ne seen maam ya ak maam Cheikh Rahima Fall ñoo daje woon ca Mbàkke Kajoor wala ñu ñëw daje Mbàkke wala ñu daje Daaru Salaam waaye ñu dab siwaat maam ginnaaw bi ku ci nekk mbooloo ma nga àndal eh, njabootu maam di jës bul murit ñu nga lay yëgal bis boobu waaye di ko yëgal nag buntu kër yi maam Cheikh Rahima Fall yi nga xam ne ñoo ko moom la ko tàmbalee ci kër Serigne Modou Moustapha Fall gi nga xamante ne bii Serigne sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng moo ne ci bopp ba di ko yëgal njabootuk sëriñ Mortala Fall sëriñ Abdou Rokhaya ne ca bopp ba kër sëriñ Basirou Fall sëriñ Bada Talla ne ca bopp ba kër sëriñ Abdoulahi Fall Ndar sëriñ Mortala Fall ne ca bopp ba kër sëriñ Assane Fall sëriñ ba kër sëriñ Aliou Fall Mbawor ne ca bopp ba waa kër sëriñ Mbacke Fall sëriñ Cheikh Cokke Fall ne ca bopp ba kër sëriñ Modou Mbend Fall sëriñ Amdi Modou Mbend xalifa Maam Cheikh Rahim Fall ne ca bopp ba waa kër sëriñ Abdou Sakkoor Fall sëriñ Fallu Abdou Sakkoor moo ne ca bopp ba kër ne ci bobba keur mam Cheikh Saliou Fall mi nga xamne mo moom maam Cheikh Rahim Fall ñoo bokkoon lépp serigne Assane Modou mam mo ne ci bobba ak mbollem daire yi nga xamne nak ñi nga aju ci Touba mo xam muy daire muxadamatul khidma bi ne ci jumaaji wala daire isbu tarxiya wala daire Touba ci kanam wala fu ab daire meuna nek ñi nga lay yëgal bis bobu diko yëgal mbollem cheikh imam Cheikh rahim Fall yi nag bàyyiwun benn cheikh ak fu mu ci meuna aju ñi nga lay yëgal bis bobu di la ci wo bis bi nak ñi ko yëgal président de la république Macky Sall ndax ci réew mi lañ koy defé te ñi koy def ay citoyens leen am nañ carte d'identité nationale te moy président de la république ñu ko ko yëgal di ko yëgal soxnaam di yëgal it premier ministre Amadou Ba di ko yëgal Félix Antoine diom ministre de l'intérieur diko di ko yëgal mbooleem membre gouvernement bi bàyyiwun kenn waaye diko ko yëgal nag ci région bi gouverneur de la région waaye di ko yëgal préfet bu Mbàkke su préfet bu Ndaam di ko yëgal it le maire Abdou Lahad Ka mi nga xamante ne bii moo jiite autorité bi nekk Touba waaye di ko yëgal maire bu Mbàkke di ministre Gallo Ba waaye di ko yëgal ministre conseiller Cheikh Abdou Bali waaye di ko yëgal honorable député Serigne Cheikh Abdou Bara Doli ak honorable député Serigne Cheikh Thioro Mbàkke ak mbooleem ko takk ndomb ak tànk ak foo ko mën a takkee ñi ngi lay yëgal bis boobu di ci woo di ko yëgal it mbooleem ñi xamante ne bii ay taalibe lañ wala ay soppe ak fu ñu mën ne sëriñ bi nee na mi ngi leen di yëgal bis bi Jazbul Murid bi nga xam ne moo lëkkale sëti maam Cheikh Ibrahima Fall yi ñi ngi lay woo ci seen bis boobu bis bu ñu xëyee danañ fa amal njàngum alxuraanul karim mooy li nga xam ne moom lañuy jiital ci bis bi danañ fa amal tamit njàngum xasida ndax njàngum alxuraan mi sëriñ Maamun moo ko jiite moom sëñ Modou Ablaye Fall Ndar danañ fa amal tamit njàngum xasida ci ay kuréel yu teqalikoo danañ fa amal tamit euh, zikrullah ndax waa kuréelu zikrullah ci njiitalu sëriñ maam Cheikh Fall moom sërif Assane ñoom it ñoom ñooy jiite sikkar si danañ fa amal tamit buñ demee ba nga xam ne waxtu bernde jot na ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu googu ñu mën a dallu def la ñu war a def bu ko defee buñ demee ba 4 heures incha allah ci la ñuy commencé cérémonie bi waxtaan wi. bis bi nag sëñ Muntaxa moom lañ ko tuddee di ci rendre hommage Serigne Cheikh Jëmbu faal kon nag bis bi ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñ kenn yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm. ñu tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim àggalee ko ci alhamdulilahi rabil alamin waxtaan wi nag euh, ki koy def mooy euh, sëñ maam Ibrahima Fall moom sëñ Cheikh Fall Mbawar ak euh, sëñ Moustapha Fatikan moom sëñ Modou Aminta ak Baye Moustapha Seck moom it ñoom ñett ñooñu ñooy def waxtaan wi. thème bi ñu fa war a waxtaanee mooy maam Cheikh Ibrahima Fall ak xidma ak maam Cheikh Ibrahima Fall ak ak taalibe mhm. ñaari thèmes yooyu moom lañ fay waxtaanee kon ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñ kenn. Euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ci kàddu njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gii toog di daahiratu Jazbul Murit jotaay bi nag. ñi fi jaar leeral nañ daanaka li ci ëpp solo euh, ñu xam le ni daal liggéey bii nga xam ni moom la suñu maam Cheikh Ibra doon liggéeyal Serigne Touba ba ko jariñu tey ci yoonu murit ci liggéeyam boobu ci nga jaar ba jariñu loolu lañu bëgg delloo ko ci njukkal moom Cheikh Ibra Fall feeñal liggéeyam boobu loolu mooy li nga xam ne moo sabab suñu jotaay bii ñu ñu di ci woon ak képp koo xam ne yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna rawatina nag yoonu murid yi nga xam ne ku jariñ ci Serigne Touba maam Cheikh Fall moo tax kon bis bii ginnaaw bi ñu ci amee ndigaloo am di mi toogee jotaay suñu maam Cheikh Ibra Fall suñu lépp ci lañ ko fas yéene def kon koo xam ne suñu mbég sa mbég la wala mbégum maam Cheikh Ibra sa mbég la ñu ngi lay woo ci liggéey bii bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñan mboolem fu fu kuréel buy yëngatu te maam Cheikh Ibra di seen yitte waa fédération maam Cheikh bi ci Italie te sëñ Saliou Ndiaye jiite ko ànd kook sëñ Ngóoda Baye faal moom waa kër maam Saliou Fall nañu xam ne bis bii liñ ciy def lépp ñoom lañ koy defal kon ñi ngi leen ciy woo bu baax a baax képp koo xam ne daal mbégum sëriñ bi sa mbég la ñi ngi lay woo ci liggéey bi fas ko yéene ànd ak yow bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn dinañ ci woo nag directement maanaam Arouna Coumba Ndoffène Diouf ministre conseiller ndax dafa bokk ak ñun liggéey bi bokk ci kër gi di taalibe Cheikh Ibrahima di taalibe sëñ Fallou Cheikh moom sëñ Cheikh Fall Khady Gueye di ci woo tam directement maanaam Pape Modou Fall directeur de di taalibe sëñ daam Saliou Fall te ñu gis tam ni mu taxawee ci liggéey bi ci réew mi waaye di ab taalibe boo xam ni Cheikh Ibra da koo ñor lool ñi ngi lay xamal ne bis bii jiitaluñ ci kenn ci yow nanga nga ci jug ànd kook ñun ci tàmbali ba fa mu jeexe ci turu sëñ maam Cheikh Fall moom Cheikh Serif Assane moom maam Serigne Fall ba mu diina moom mi nga xam ne moo jiite tuddkat yàlla yëpp muy daayira bu lëkkale tuddkat yàlla yi muy xidmatu maam sëñ bi di wax ne mboolem fu tuddkat yàlla eh, tuddkat yàlla nekk ci réew mi bis ñuy woote nan xamne ñom ñi ngank tur yalla wi te mam Serigne Fall nag sagalee ñu ko ñu di ko yëkkatil fu ñu Cheikh Rafal mi tax ñu diko woté mom lañu la tur yalla wi kon señ bi day wax ni fu way ma nek bis ba lam ci santane moy ko sori na nga fanaan si ndax tur yalla dañ koy xeyé yendo ko fi itam ci daara ji te ñi di woté woote itam ñoom njaboot gépp boo leen boolee mooy jëmmi cheikh rafal ji taxaw te moom lañ jiblo liggéeyal tur yalla wi kon señ bi da bëggoon buñ ci tollo fu tuddu ko yalla nek boo soree na nga fanaan si ñi nga xam ne ci dëkk bi lañ dëkk nag nañ xëy si te teel a xëy daje fi ànd ak ñoom bis bi yëg tur yàlla a ko loolu la na nag nekk nag na xam ne bu déggee jataay bii mooy ab woote bu jëm ci moom waaye ku tudd yàlla te yëg Cheikh Rafal nag na nga xam ne bis bi lu ca am rek yow la ñeel kon mi ngi ci woote tuddkat tuddkat yàlla yëpp nag fu kuréel nekk daal na xam ne appel bi ñu def mooy sab woote ñi xam dañoo sori nañ fanaan si ñi nga xam ne dañoo jege itam nan teel a xëy ci ba waxtu ñu ko soxlaa ñu yëkkati ko ba mu jeex ñaan ak ñoom sàkku ñaan te xam ne ñii di liggéeyal maam Seex ci alxuraan ñoom nag Cheikh Fall ju taxaw te tur yi ñu soxla nag Cheikh Fall moo ñu sagalee ñu di ko yëkkati fu ñu maa ngi woo mboolem eh, ahlu Mbàkke di woo ahlu ak jigéen mag ak ndaw xam ne liggéey maam Cheikh Fall bii ah liggéey la boo xam ne jàpp naa ne képp koo xam ne ah eh, na la nga taxaw ci li nga ci war a taxaw nga def ci li nga ci war def do ci am ak re ci mukk ndax maam Cheikh Fall day ba mu jógee ba tay delu ginnaaw kanam rek la jëm waaw kon nak nañu tagat suñu xol yi tagat suñu xel yi tagat suñu poche tagat suñu jëm jël lépp jëme ci bis bobu nga xam moy le 29 avril de nga ñu ci wara sargal maam Cheikh Ibrahima Fall fi ci Jannatul Mahwa ci daayira Jazbul Murid sëñ Modou Fall doon njiit li fii ci Touba ah may woon nag mboolem sunuy bàjjan di woo sunuy baay di woo sunuy nijaay di woo sunu mag di woo sunuy rak di woo sunuy doom ak jigéen mag ak ndaw fii ci réew mi ak ci bitim réew ñu ngi woo ñëpp képp kuy wax ashhadu lay laa ilaaha rek bàyyiwuñu kenn daan xaadir laayeen murit ku mu mën doon de képp koo xam ne yaa ngi ci woote ci ashhadu an laa la illallaah ñu ngi lay woo waaw euh, Barthélémy Dias maire de Dakar ñu ngi koy woo di woo première daam ñu Marème Faye sàll ñu ngi ko ci woo membre du bi yëpp nag ñu ngi leen di woo jigéen ñi ci waañ bi ñu ngi woo jigéen ñi ci waañ bi tamit surtout ñu ngi leen di woo lépp lu ñu mën ci seen taxawaay ci luy tax bis bi jag ndax bis bi kat bu ay gan ñëwee taxawaay bi nga ci war a am taxawee woo ko waa bu boobaa tam mën nga ci am yaraanga kon loolu lu am solo la ci bis bi daje bi nag am na solo waaye toppatoo gan ñi tam am na solo kenn ku nekk lay sa charte te ñu jox la ko nga nekk ca na nga ko na nga ca da am pasteef defe ko na nga ko na mu waree li nga xam ne yaa ko jël engagement ne lii kat moom laa chartoo ngir liggéey bi aw yoon loolu kenn ku nekk war na ko fullaal war na ko faydaal nekk ca ci dëgg ak ak fayda. waa daayira bi nag nee na ñu ngi ko yëgal Serigne Abdoul Karim moom Cheikh Mahamadul Fadal Makarimal Akhlaq ndax jote ju ne joote da koy jiite te sëñ Abdou Karim moo sàkkoo ànd ci mbooloo mi ak jàppale leen ci liggéey bi waaye noonu ñu ko yëgale nag ni leen ko yëgale mbooleem njabootu sëriñ Touba gépp kenn di ko yëgalit mbooleem buntu kër yi maam Cheikh Rayma Fall yu jigéen yi la ko tàmbalee ci kër soxna Faati Fall ba ci kër soxna ummi bàyyiwuñ ci benn buntu kër di ko yëgalit mbooleem ñi nga xamante ne bii ay daayire lañ yu ne ci biir réew mi ak bitim réew rawatina diaspora bi ci ñi ci maam Cheikh Rayma Fall képp ku yor parti politique ci réew mi wala nga yor ab association wala ONC bu mu mën a doon rek ñu ngi la ko yëgal ndax Cheikh Ibrahima Fall lañ wooteel te Cheikh Ibrahima genn kàddu képp la am muy laa ilaha illallah kon képp koo xam ne yaa ngi wax laa ilaha illallah ñu ngi lay woo di ko yëgal nag kuréel bu ndar ñi nga xam ne ñoo fiy def exposition yi Babacar Mbaw Cheikh Babacar Mbaw alali maam Cheikh Ibrahima Fall université Cheikh Anta Diop ak gëm kennal maam Cheikh ma Fall ak mbooleem beneen kuréel bu mu a doon boo xamante ni bi yaa ngi yëngatu ci dara ñu ngi woo ci bis boobu le 29 avril lay doon yemoo ak juróom benn fan ci weeru kor yi fii ci ma mawa ànd ko ak waa daayira Jazbul Murid ñuy ñaan képp koo xamante ni teew si nga ci bis boobu la Cheikh Samba Diarra Mbaye waxoon ca jës bu la bii jës bu jib xañ fa mu jib la ko xañ na daw a daw dem na xamee ful fu mu jëm maam Cheikh Rahima Fall mooy ki toppoon Serigne Touba Khadim Rasoul ba tee mu réer ñu mooy ki nga xam ne moo ñu wan naat bi kon képp koo xamante ñëw nga ci bis bi yàlla nga dajeeg ngërëmul maam Cheikh Rahima Fall wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa